asalaamaaleykum waa Sénégal maa leen di présenté seen émission All Sport man la seen mbokk seen xarit seen doom Babacar Babacar Diop tey jii nii suñu nee All Sport ça définit tout le sport maanaam basket lutte ak euh, taekwondo genre tey jii on a un invité un invité de marque tey jii nii suñu un invité de marque un invité boo xam ne tey jii am na lu mu def ci Sénégal moom lañ am ni moom lañ toog fas yéene koo tadakal fas yéene ak moom. tey jii nii ñu war a fas yéene waxtaan ci làmb te tey jii nii bu ñu nee làmb Tyson yóbbu na ko si ay million moom mii tey jii nii yóbbu na ci làmb foo xam ni foo tourné ci xale mu lay wax ni ay yenn termes comme si ay soos soosaat ay dóodóoraat ay ñam-ñamaat ay neex-neexaat tey jii foo tourné ci xale tey jii nii kii moo tax ñu xam ko tey jii nii à travers lui moo tax ñu xam lu bëree bëree bëree bëree ci làmb ñu ngi lay siyaar Zoss. oui maa ngi leen di delloo siyaar. Euh, di sante yalla encore une fois di euh, julli ci Seydina sallallahu alayhi wasallam euh man je me présente je m'appelle Saliou Ngom Serigne Saliou Ngom di Zos. donc euh, Zos c'est le nom bi on xamante on moom lañ utilisé. waaw moom lañ gën xam quoi. moom lañ xam mooy lu jëm Seydina Mohamed. lu jëm Serigne Saliou kenn di utilisé. souvent ci ay bërëb yi mel noonu. dëgg la. donc encore di santaat sumay waajur. ñaanal sa baab yàlla na yalla xare àddina. amiin. ñaanal suma euh, yaay yàlla guddal ay fanam. Hmm. di sant sama sëriñ sëriñ Moussa Naare. am na fi yàgg lool te ànd ak wér. amiin euh, di ñaanal aussi Cheikh Béthio Thioune mi fi jógee. yàlla xayra ko àjjana ak àjjana yi kawe yi. ndeysaan dara doon na social moom tamit. c'est vrai social mooy joxe lekk dañ joxe joxe lekk bokk na ci jaamu yàlla yi gën a kawe yi. Hmm. donc vraiment di ko ñaanal yàlla yàlla xayra àjjana. Hmm. vraiment di sant sama partenaire yi may liggéey yëpp ci arena Blue sport et santé euh, lu mel ni Big Pato nekk koo xamante ne vraiment mu ngi jàpp social bi ak almaa bi nga xamante ne moo nekk fi ñu naan euh, service bi mag la nekk aussi di ci liggéey voilà euh, di sant encore sama supporters yi ak le mouvement DMD mm-hmm. le mouvement arena Blue santé et le mouvement Sen mm-hmm. social shopping aussi nekk structure bu bag mag boo de vraiment c'est liggéey. Mhm. dama ko dama si apprécier. Mhm. parce que boo nee arena bleu tu parles de social. donc ngeen ñëwaat encore section entre euh, ngeen ñëw fekk si mhm. social shopping. c'est vraiment c'est c'est un plaisir quoi. c'est quelque chose c'est quelque chose. il faut ñu ci véhiculer ministère bi OMS on fait un appel pour la OMS OMS pour organisation du mondial de la santé. je suis engagé je suis un jeune célèbre salut Ngom di Zos donc. Nous avons appel ci autorité yi. Ah. ngeen supporter. le mouvement. Euh, Arena Bleu Arena Bleu sport et santé. Mhm. accompagné toujours souvent avec le social. Euh, le social shopping nga avons aussi parlé na di di di di donc OMS. on est engagé pour le déficit. Mhm. Donc on a vraiment besoin de votre main pour vraiment nous pousser à atteindre notre objectif voilà du don de sang donc comme le cas Zoss waxee social shopping noonu la fi nekkal pour def ay social pour xool ñu xam néew doole ñu jën leen jàppale. xam nga don de sang yi loolu c' très bien à faire mais Zoss. suñu 1 pour cent deux fois rien. Mhm. Dakar on possède sept même pour cent xoolal loolu. Le déficit, on peut gérer ça sur Dakar pour mieux servir les, les, autres régions. Mhm. Sinon, on fait les car on caravane pour les autres régions, des caravanes pour les autres régions. Donc, on est prêt, on est engagé. Mhm. Vraiment, par le ministère, nous les déglou, OMS, nous les autorités sénégalais, nous les déglou, pour vraiment ce projet gagner, sauver les vies des, Sénégalais. Ouais, c'est un Sénégalais et c'est bien engagé aussi. Mais on est pour mieux promouvoir, on est bon, on est amnolumou bug, comment? am na lu mu gis am na ñu mu bëgg a jàppale tamit ci réew mi kon yaakaar naa ne gars yi war ngeen si ñëw mën si jàpp et mais Zos bu ñu ci loolu Zos ban xaalis la am ba war a mën a taxawal ONG bu toll ni association bu toll ni OTAN. waaw mais du question xaalis bu bari euh, à ce sax mais xam nga. dañu mais association caaxaan taxawlu ko caaxaan taxawlu ko mais surtout bi nga nekk nii. voilà moo tax ñu ne booy booy taxawal dara euh, ñun gëmuñu nii sax di def ay appel ay autorité ab bien avant dañu xam dama dem ba ci bi ñu ne ma li ngay defee mënoo ko ak sa xaalis. Mhm. moo tax ñuy woote pour nit ñi jusque pour les artistes et les autorités ñuy organiser ay journée de sensibilisation parce que les les gens ne sont pas sensibilisés sur le domaine du don sang li ma lay wax nii man. Mhm. xaw ma ko woon dama dem jàng pour xam ko. c'est vrai n'est-ce pas c'est vrai donc moo tax ma génnee samay propres moyens commencé def ay collecte commencé fay ay podium euh, def ay flyers woo booy rouleurs yi kon association bi amna budget. Amna budget wa. Amna budget Amna budget am budget bu solide. bu Masha'allah. allah budget boo xamantene ci lañuy liggéey bala kenn di ñëw. parce que euh, sàkku ndimbal ndimbal loxo lay fekk loxo borom. genre moo tax ñuy a commencé. pour def suñuy propre moyens. Euh, bi ñuy taxaw aussi y avait la fondation que Rasoul c'est sekk Thiam. dugal na l'homme aussi ak ministère de la santé bi dugal nañ seen loxo mais ce que nous def bu ñu ko def bu ko j'ai pas envie de de de de faire le clash mais bëgguma ñu toll foofu aussi nañu ñëw jàppale santé bi les, mais donneurs yi ñuy bénéficier quatre membres membre aussi nous ngi ciy profité ak t-shirt dina ànd ak programme quatre amee carte membre dina ànd ak programme ak t-shirt ak casquette arena bleu ak ay possibilité avec le groupe sanguin ça va être dedans donc, dans ton cadre, membre Arena Blut, ça te permet vraiment de faciliter certaines choses. Quoi. Mais Arena Blut, il y a une finance, il y finance, l'État qui finance, ou il y a des gens qui les financent, ou qu'est-ce qui se passe à travers Arena Blut Non, moi, je suis notre propre financement pour le moment. Mais moi, on fait un appel pour le ministère de la Santé et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et les grandes ONG, les grandes euh, comment euh, fondations, comme on a déjà la fondation que euh, Rasoul, on, appelle aussi les autres fondations et les relations internationales pour que qu'ils puissent venir supporter le don de sang, le Blood Donation au Sénégal. Mais don de sang, je me dis, mais ça n'aboutit à rien quoi. Mm. Donc, ils définir pour ben passe-temps après nous may laaj Zoss est-ce que yow li nga nekk nii dégg nga si parce que dañ dem dama dem OMS ñu ne ma ñu ne ma euh, ministère de la santé euh, comment dire CNTS ma dee CNTS la euh, ñu ne ma loolu mooy problème artistes yi mooy kenn day def don de sang toog 10 ans. voilà xoolal sang bi nga xamante ne 4 jours lay def yow nga bëgg a toog 10 ans 10 ans ñaata ñaata mort nga fa la moo am foofu. parce que ñu ne pour cent des morts c'est à cause du manque de sang donc dañu man. projet la boo xamante dama bëgg ñi may topando loolu moy plaisir bi Zoss des na don de sang nag keneen def man fierté bobu la ci am. comprendre nga donc il faut que les gens avoir l'habitude de de de faire des journées du don de sang loolu moom mooy biu euh, association bi il faut ñu ñu toppandoo. pour pour pour mu meena nek nekk. yaakaar sa question loolu la woon. association bi yaakaar naa yaa ngi si gis satisfaction bu baax. ay association bi est-ce que mi ngi dem tamit ci kanam. carrément association mëno ci gis parce que c'est le social duñ ci satisfaction man ci may focaliser wu moy sama société S-Fly One mi nga xamante mi ngi dox ci BT BTP import export xam nga marketing et tout donc société bobu la xamné ça parle di des fonds fonds lay jël di ko investir ci social parce que dañ né buñ né ZOS qu'est-ce que ont a fait pour son pays donc c'est le programme du Dorsant et le social. donc fi ngay jëlee xaalis boobu di ko def euh, association. Euh, c'est ma société qui s' appelle One foofu laay génne qui s' fly One donc je fais partie dedans de ces sociétés fa laay génne Harris pour mën a taxawal Dorsant et pour mon a le mouvement en Afrique aussi. voilà donc euh, di di leen aussi vraiment seen social bi ñun pare nañu aussi comme partenariat on travaille dessus pour le programme du dos de sang. sportif un sportif doit être un exemple parce que moi je suis parti de rien du tout. I'm a star from the bottom. I come from nothing fi je jógee c'était c'était absolument rien donc moi, je ma créé le mouvement euh, bi tudd Dóor Dóoraat ñëw créé euh, Arena Blue Sport et Santé. Moi le mouvement en Africa moi DMD aussi moi parti mouvement politique mané conti élection donc c'est déjà passé donc on est au social maintenant on est plus on est plus euh, on est plus social mhm. c'est le même groupe mais on est plus social que on n'est pas au, moment des campagnes. Donc on est là pour voir aussi, on, doit avoir quelles, quelles autorités nous avons

dama dem CNTS chaque femme bu fa décédé ma fekk yaay ji di jooy ma ne ko lan la je ne ma pas sama dom. ah bon elle est morte non mais ça fait partie des des des actes parce que on m'a on m'a déjà euh, euh, sollicité des des des des problèmes de sang tellement que bi ma fait sama recherche j'ai vu que vraiment c'est ça le potentiel problème potentiel problème une insalubrité engagée mm-hmm. ñëw yàlla moo lay woon foofu ne la regarde kenn ngi nii elle est décédée à cause du manque de sang nga dem a teg si ñu ne la quinze pour cent des morts c'est à cause du manque de sang kon c'est un projet sensible. du loo xamante ne vraiment dama ci dugg mais avec fierté xam nga da nga dugg dara nga sentir ko. moo tax ma jël samay fonds bopp di ko def laa laajuñu kenn un franc mais ñëw leen organiser ay dons de sang appel moi c'est gratuit ma ñëw sa koñ ñu présider journée yi. même si vous avez 5 cinq poches c'est bon mais le reste c'est de sensibiliser les personnes c'est ça qui est important. wax ne zos bu zos mhm. on trouvait souvent zos et est-ce que Akon dugal na loxoom ci association pas encore dugalagul ci loxoom association bi mais Defna un appel pour moi. je l'ai bien dit, je l'ai envoyé les messages, je lui ai dit que oui, le Sénégal a un problème. Il a problem of the blood donation. So you have to like help your like your country. yow njëkk tey jii nii taxaw dugal ci loxoom ndax Zoss tey jii nii buñ ko xamee. Mhm. moom ak Akon dañ yàgg xam ñoom ñaar ñuy ànd. waaw xam nga Akon moom you know Akon is too busy. dañ koy xaw a dañ koy xaw a comprendre ci côté boobu. mais encore une fois dinaa ko relancer xam nga wax ko you have to come back ci ci this projet. Mm. because you have to help your your your family you have to help like your country Senegal and Africa. Mm. xam nga because oh, oh, kii bi projet bi c' est 17 pays de l' Afrique on a protégé depuis Cameroun le commencement c' est Sénégal mais dañuy après dañuy song sous région tu imagines le projet tardé na fi 2 ans xoolal 2017 ba nu ñu jot benn financement bu bu atteindre objectif bi dañu bëggoon bu ñuy placer projet bi ak banque de sang ba mu ba mu passé dañu fiy teg équipe. c'est le projet m'appartient pas tooguma fii pour def pro ay don de sang rek. dañ ko fii bàyyi dem créer benn équipe en Guinée Bissau ak Conakry Mali Gambie Mauritanie en même sous pays voisins yi ba pare après ñu commencé song Nigéria Cameroun Côte d'Ivoire. xam nga Ghana Éthiopie commencé duggu Tchad dugg ci dëkk yëpp placé fa ay banque de sang ba le déficit dootul amati problème ci sa benn tubaab doo ñu xas naan africain avoir un bébé un bébé la vie. mais loolu yomb de. parce que il faut ñu xam sens bi keroog dama ko wax benn grand mu ne ma sama jabar loolu moo ko rey xale yi la fi bàyyi dem nañ forcé ko beneen sang ñu koy sang bu wul. te eh, état bi day dégager benn budget boo boo boo kiwee boo mayee deret dañ 48 heures ni ñuy traité sang bi te loolu du lu du c'est pas ñu fa dañu fa dañuy génnee deret rek dugal ko fii c'est pas ça état bi am na benn budget boo xamante ne da koy dégager pour ñu traité sang boobu génnee lu baax li génnee lu bon li pour mën ko jox nit. waaw kon décevoir kon bu baax. Mhm. Mhm. ñoom dañoo ragal ay mhm. ah. dañ koo xaw a ragal je sais communication bi moo dafa desoon. moo tax ñi woo appel tous les journaux. mais moom yéen moom vous faites partie de notre premier partenaire. mooy social shopping. on est dans le social on sera toujours aussi dans le social. voilà Et fekk ci le parce que comme ni euh, Arena Brut c'est quelque chose de très grandiose de Magla, parce que sénégalais ils admirer parce que dans le sang on peut dire. Ah. Mm-hmm. donc euh, nous, on est toujours là. Euh, Ma Mention spéciale dans, à, euh, Social euh, Shopping parce qu'il fait partie de notre partenaire. Je lance appel aussi à notre, les autres partenaires comme euh, les artistes comme Matador, comme Adjusa, comme... Mais c'est bien de les appeler aussi. Oui, oui, oui, parce que nous, c'est les premières personnes aussi qui pour le projet. Moi, Adjusa, l'artiste Adjusa, mhm. Matador, Simo, mm -hmm. Ngaka Blende, Big Pato bi toog maam Gor Diazaka y a aussi Papis Konaté l'artiste y a aussi Thione Seck vraiment muy nekk ay nit yoo xamante ne ñoom ñoo njëkk a taxaw supporter euh, projet bi ak taasukat bi nekk euh, fële la Diourbel maa ngi fàttali bi aussi ak Wally Seck aussi participer participer si affaire bi mu nekk nit boo xamante ne aussi pare na nee na ma pour accompagner mu ci social bi parce que ñëpp xamuñu woon sensu Euh, liggéey bi donc ñu ngi lancé appel aussi boo gisee teeluñu song mbëri mbëri dañoo bëri ay kërëng-rëng <laughs> xam nga commencement bi dégg commencement bi boo boo ñëwoon tey ne leen ay deret rek ngay dégg seen mbokk yi ne leen laa ilaha illallah seen deret la ñuy yóbbu parce que au commencement dañ dem sama yaay ne ko Zoss ay deret lay liggéey léegi sama yaay tamit xamul ba ñëw mu ne ma nii laa ilaha yow deret jàppale loxo de <laughs> xam nga te or ma ñëw ne ko deret dégg naa ci affaire deret di ngeen ma ne ko non ñun appel lañuy def ñun defuñu prélèvement parce que xamuñu lu ñu koy defee c'est des docteurs ñooy toog ñun lu ñuy def mooy woote docteurs yi ñooy ñëw xool sang bi mu ne ah loolu la ma ne ko lool la. mu ne ma ñun waxuñu ma loolu de dañ ma ne da ngay jël deret jàmbur yi. ça day xaw xaw a des.

bokk takk jóg mu ñoo ñëpp ñu leen di woo parce que c'est des relations internationales yu war a ñëw ci social yéen moom mention spéciale tout ce qui est social dinañ leen wox loolu ma bi ba ngeen pare tous les journées de Arena Bleu Sport et Santé accompagné par social shopping